713 vingt 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax mbokk internet vingt 24 ñu ngi leen di nuyu ba tey ñu ngi fi nga xamante ni rek moo di Mermoz ñëw nag ci li nga xamante ni moo di lay laylatul xadir bi nga xamante ni euh, moom la Serigne Saliou Thioune euh, organisé fii léegi nag ñu fekk fi kenn ki nga xamante ni sénégalais yëpp ko bëgg muy Maysa Thiam Maysa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si di nuyu àdduna di wax jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké di ñaanal Serigne Saliou ndigal Thioune mu yàgg lool te wér di ñaanal xale euh, xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te di ñaanal Serigne Cheikh mu Serigne Saliou tey ñaan Serigne Béthio jaamu Serigne Saliou yërmandeem gën a sotteek suñu jëmm yi di sant bu baax di nuyu àdduna di nuyu waa Sénégal 24 yëpp di leen bëggee. Euh, may sa barki démb gis nañ la 17 avril tey ñu gisaat la fii 17 avril fële ca Mbour tey ñu gisaat la fii yéen relation nga am ak Serigne Saliou. mooy sama sëriñ ci sëñ Béthio laa jébbalu en 2003 sëñ Béthio rek laa xam 17 euh, avril nga ma gis ak tey bu sëñ Béthio ma sa tànt maa dem naa xelkom dem naa sëkk ba dem naa fu ne fu sëñ Béthio woote maa ngi fa dama di taalibi sëriñ Béthio sañu ma toog Sénégal 17 avril jot wala màggal jot wala euh, leeru xadr jot sëriñ Saliou dugal cuun woote ko ma toog sama kër aw ma fit boobu sax barke sëriñ Saliou Mbacke donc amul relation day sama sëriñ may taalibeem loolu kese la dama di waaw lan ngay soññ euh, yeneen taalibe yi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 danaa dugg kër gu nekk xool fa ka fa ma taqale ko sama sa jëmba ji yow sëñ Béthio ñu am chance am ndimbal bokk ci ndax jàmbaar am fi ku ñu dimbali moo fa am ndimbal bokk ci taalibe Serigne Béthio ci Serigne Saliou tànn boole ñu ak sëñ Béthio bañ duggee sëñ Béthio ba tey lañu lañu lañu lañu la ñu doog a xàmmee lu baax xam fu ñu teg suñ tànk sëñ Béthio ndeysaan moo ñu jàngal jëf jëfal sëñ Tuubaa moo ñu jàngal liggéeyal sëriñ Tuubaa moo ñu xamal lan moo di ak cant moo ñu xamal lan mooy suñu diine moo xamal nan la war a doxee ci àdduna yar ñu teg ñu fi mu ñu war a teg ñu doon ay responsable euh, tax ba tey fu ma toll ci àdduna ñëpp xam ma ndax ci laa sax ci laa ci laa xam moom laa xam moom laay ñaan moom laay liggéeyal kon tey soññee gi may def ci yeneen taalibe yi mooy nanu jaajuwaat te gën a defaraat seen toogaay te xam ne Serigne yi moo fi ne Serigne Saliou du ay caaxaan Serigne Saliou du waxantu moo ne sëñ Béthio loo wax maa ko wax loo def maa ko def bakkan new ci àdduna new ci lépp day Serigne tubaa jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la Serigne tubaa daan def ci mag ñi donte yeewu ma ko ma barkeeloo ko teg ci ne man ak yéen ànd bi ñu ànd da ngeen di ji da ngeen may jiital ma topp seen eh, ngeen topp sama su ma leen gisul la may taxaw xaar leen su ma leen xaar ñëw leen ma dëpp xool fan ngeen ne su ma ñëwee fekk leen ngeen dem ma jiital leen topp seen ginnaaw waaye man ak yéen duñ tàggoo Serigne Sall du koy waxantu kon nanu defaraat toogaay te gën a doon taalibe gën a sax ci gën a jàpp Serigne Sall ndigal mi nga xam ne moom la ñu Serigne Béthio booleel yëf yi mënul am mënul am mënul am werenteeg mënul am ay looy hésité ak looy calculer Serigne Saliou la moo fi teg Serigne Bathio Serigne Bathio dox na mission bi dem na taaw bi la fi ba nañ topp ci ginnaaw Serigne Saliou ndigal cuun du jëfee ndigal tey bàyyi tere ba keroog lu Serigne Saliou def ñu xam ne loolu la amul leneen amul secret loolu képp la. lan ngay wax soxna Aïda Diallo. xaw ma ko lu ma koy wax xaw ma dëgg yàlla xaw ma lu ma koy wax man daa Serigne Saliou ndigal cuun mooy sama Serigne moom lañ war a topp. ndax Serigne Bethio waaye soxna Aida moom xaw ma lu ma koy wax xaw ma ko de wax dëgg yàlla mu <laughs> du ma ko du ma ci jëm sax da ci dugg ci ay détails ndax dama di xale Serigne Saliou ndigal tun rek laa xam. lan moo la gën a manqué ci Cheikh Bethio tey. tey ji bésu tey bi li ma gën a marqué Serigne Bethio Serigne Bethio li ma gën a marqué ci moom wax dina jafe ndax li ma marqué ci Serigne Bethio bari na waaye xam naa ne daal doon gi mu doonoon dëgg-dëgg Serigne Saliou Mbacké. bokk na ci li ma gën a marqué ndax sëñ Béthio moo ñu fekk fa fu fekk ñu ba dara dul dara mën ñu cas yëkkati def ñu dara kon doon gi mu doon Serigne Saliou Mbacke te muy dëgg-dëgg jëmmam moom bokk na ci li ma marqué barke Serigne Saliou waaw donc tey bokk na ci jëmmam ji wéetal gi ñu wéetal ndax xam na ne mi ngi fi Serigne Saliou ku ne xam na ne du kuy dem daa mënul ñàkk nag ci saay rek nga toog gisatoo jëmmi sëñ Béthio gi waaye ñun xam nañ ne ba léegi mee ñun ndax Serigne Saliou ndigal cuun mii boo ko xoolee xam naa defarug Serigne Béthio dëgg la amul leneen waaw jëmmam ji ñu jëmm jëmmam ji ñu gisatul rek moo ñu wéetal de képp barki Serigne Saliou ndax heure bii bu fi ma saan a toog xam nga ngay am looy dund nga di ko xool dëgg yàlla waaw jëmm ji daal boo tax na bu ñu ko gisee ci écran yi sax suñu yaram day daw day sax tur ay xéwal waaw loolu daal loolu daal xam naa ne moom marqué nañu lool waaye waaw. Euh, <laughs> doy waar yor ay jéegam yor ay ay apprentim di def lu ko lu ko neex lan nga ñu mën a wax ci loolu. waaw loolu dañuy bàyyi ba beneen interview rek tey bés Serigne Saliou la tey bés cant la tey Moussa Dieng moo fi ne taalibe Serigne Saliou ndigal cuun waaye VIP nañ bàyyi ba beneen interview ñu fekk ma fañ ma war a fekk ñu wax ci VIP Sagnsé. mais mën nañ la xaar ci yeneen série. mooy sama métier artiste comédien laa de métier am na sax yeneen projet yu ma def mais du du ko wax fii parce que mooy li ma la wax am n foo xam ne ba mu fekkee dinaa euh, développé ak bari. mais d'une manière général man théâtre mooy suma métier jamono ji ndax maa ngi ci benn télé di fa liggéey donc waxuma la beneen série man pourquoi pas Nollywood sax Canal Plus Horizon fu ne mën nañ ma fa gis parce que acteur la de métier. ñu ngi lay jaajëf waaye Serigne Saliou ndigal Thioune la di cantaakoon bu mag you know what I'm saying <laughs> comme que loolu nga ma may la ko. waaye waaye may sax ku la jàngal loolu. est ce que doo bàyyi ba booba tamit. waaw wax ma rek wax ma rek arrêté. da nga fi bëgg a hésité. mais loolu yaa ko créé wala lan la. waaw ma créé artiste laa man aar laay def man moom laa jàng aar laa jàng dama ko jàng. mais anglais yi ngay làkk tamit pour lan. li ma mën loolu ci gën a ndaw parce que boo ma déggee da nga yaakaar ne man anglais laa wala espagnol laa wala portugais parce que maîtrise moo koy defee mais li ma mën loolu ci gën a ndaw. mais xam nga li ngay làkk dara baaxul. xanaa déggu leen waaw loolooy talent bi tey ñu bëri pour ñoom dama maa ngi Europe. wala waaw alors que euh, façon bi nga koy defee façon bi nga koy waxee euh, boole ceeg jeu d'acteur bi. mu réussir ba ku la xool di dugg ci po bi yaakaar na li ngay laaj parce que am na xam ne pour ñoom damay la am na xam ne pour ñoom man maître tailleur la alors que loolu bitig la bu ñu aménagé da ci joué donc talent bi mooy loolu ko loolu lépp nag ci ci ci ci ci ci ci liggéeyal Serigne Saliou moo ma ko may sant naa ko tedd gi ndax lu ma am moom la ndax succès yàlla naa yàlla na ma yàlla jël suba yàlla na ma Serigne bi rey suba moom rek laa xam Serigne Saliou rek laa bëgg. ñu lay jaajëf.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 813 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax